Bonsoir à tous, bonsoir à fidèles téléspectateurs de la SS. C'est toujours un plaisir, comme je vous l'ai dit tout le temps, euh, de vous recevoir sur la chaîne sénégalaise, la télévision, euh, passionnément. Alors, koutinek Manglen Dunuk, di ah, j'espère que vous avez passé. Euh, bon ramadan ko vous euh, ngeen pour une h euh, 30 d'ambiance alors cette émission li xew euh, avec de plus belles, raison pour laquelle ñu ñëwaat indi émission préférée li xew pendant 1h30 à comme tous les samedis soirs d'ailleurs sur l'antenne sur l'antenne plutôt de la télévision passionnément alors euh, j'espère que vous mu ni nii ndax comme ni ngeen ko gisee ci béyaa dafa am benn ndaanaan muy mustapha Rasoul ah taalibe xaadar bobu nga xamné tay mom la invité moy sama invité d'honneur de cette soirée moi fasciné ñeu pour ambiance leen pendant une heure trente mu wooye leen ku leen neex ngeen en direct en 88 628 71 71 bu ñëwee ci plateau bi ngeen laaj ko lu leen neex ah mu daal leen ko wëyal daal di waxtaan ak yéen daal tey daal eh, day sell j'espère que ni ma def nii neex na leen nag samdi soir bëgguma da leen déranger benn yoon ah, moo tax tey ma daal di génn fii tey moom spécialement eh, ki ma àndal muy. Eh, les voiles de Sorna. Alors euh, voilà, aujourd'hui je suis habillée par les voiles de Sorna. Et pour la tunique, comme d'habitude, Nena Len Dimon, c'est mon sponsor officiel. Sama boyu xol la moom alors les voiles de Sorna momo moo ñëw ci li nga xam ne machallah macha allah euh, musóoru pop ne ni la ma ah Papa Kara les fu qui nekk nii nii rek laay def léegi ah léegi ay xeetu xos yi c'est fini un mois bon, xamné moi li damay continuer ça, je vois que vraiment ça me va bien voilà je suis pas modeste d'accord j'arrête <laughs> alors lu avec la complicité de la régie étant donné que Moustapha Rasoul l'a invité alors moom par contre euh, daaw rek yàggul dara mu defoon benn anniversaire bu mag fële ca Sorano mu invité woon ci nag woykatu diine yëpp ñëpp wuy si nañ ko en masse la salle était archi comble alors lu ñuy def banaa ñuy dalal suñu invité d'honneur tey bëggoon naa nag ñu seetaan un peu li nga xam ne mooy anniversaire bu mu amaloon fële ca Sorano euh, c'était l'année dernière juste pour vous redonner goût ngeen xam ne nag seen soppi mu ngi waaj a ñëw léegi-léeg téléphone bëgg mu mu sore leen benn yoon 88 628 71 71 en direct comme je l'ai dit tantôt c'est 1h30 d'ambiance alors avec la complicité de la régie ce qu'on va faire c'est que tu vas juste nous offrir les 5 minutes euh, de show Wartan bu à à Moustapha Rasoul. et on revient sur le plateau à tout de suite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 nafsi nafsi taluma kenn sama bakkan laa tal julit ya jaaxle lool ñu ni daw leen si ci yonti yàlla ibrahima ibrahima xalilullaay yonti yàlla ibrahima ni leen nafsi nafsi taluma kenn sama bakkan laa tal julit ya jaaxle lool ñu ni daw leen gaaw di sangu Makka Madina bàyyi Faatu bintu Rasululaayi bàyyi Roqaya bàyyi Zeynabu maami Cheikh Abou Mouhamed Abdoul Khadir Jilani fondation kër Rasululaayi fondation Rasul Bull.

dina leen tegal spécial ci Moustapha Rassoul alors euh, comme li ma leen ko waxoon tey nag euh, bisam la muy sama invité d'honneur tey ci émission li xew bi nga xam ne euh, ci weer bi la ñuy tàggatoo alors Moustapha nag tey ci yow lañ na tijjilaat li nga xam ne mooy émission li xew ci weeru Ramadan bi nga nekk suñu premier invité defoon nañ ko daaw mu neex loolu nag macha allah tey nag nga ñëwaat ci plateau bi kon dama leen nuyu di la ziar ci weer bu tedd bi. aouzu بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غناو دولتي با نسانت يالا جولتي سام سانغي سيدنا محمد نيغي سانتات بو باخ دي غرمات بو باخ واجوري يالا باي لين سونو كانام ياك في لول تي اند ويل تي بارك شيخ شيخ سام دي جيتال تي نيو بي نك سونو خليفه جنرال شيخ البنن دومي شيخ طالب يا دومي شيخ سام nga xam ne bu yàgg rek tournée bi Dakar la ko tëjee euh, di nuyu nag sama wasila Cheikh Al Khalifa doomu Cheikh Hadrame doomu Cheikh Sidi Bio doomu Cheikh na Cheikh Sadbu ak njabootu Cheikh na Cheikh Sadbu yëpp njabootu Cheikh na Cheikh Mohamed Valel yëpp di nuyu soppe yi xarit yi am di jàmm yi ñi ni seetaan fii ci télévision LCS jërëjëf mm. kon man tamit maa ngi nuyu euh, ñi nga xam ne ñoom nga àndal euh, ci plateau bi ku ci nekk maa ngi leen di ziar mm. bu baax a ah. gis naa ci samay xarit yoo xam la woon ci weeru ramadan bi ren nag ñu ñëwaat nuyu euh, bu baax baax hein, di euh, pour ceux qui viennent de nous prendre en cours comme li ma ko euh, tous les samedis soir tu wèr bi inshallah allah chaque samedi à partir de 21h30 di ngène am invité d'honneur tay nak dama ko tàmbaleex ki nga xamné moy seigne Moustapha Rasoul moy taalibe xaadr bu mag bo nga xamné ne kenn ko présenté ci légui comme li ma ko émission bi seen émission la da ngeen di wootee en direct ngeen daal di jàll waxtaan ak moom waxtaan ak man mii ak képp ko leen ci bëgg waxtaan waxtaanal rek loolu leen ci bëgg tamit ñu defar leen ko une heure trente boo xam ne dañuy waxtaan lu sell woy lu neex ah mm-hmm. Moustapha noonu lay ah, demee kon numéro de téléphone bi muy la 88 628 71 71 ngeen jàll en direct kon Moustapha yëf yaa ngi noonu nag tàmbalal ko صافحني البزي وحسني عن وزي بأن أجاب عن أجل شسع بنينا سلام على من لم ينل العلا وسوله عاي لو جاب عن أجل الشيخ الله يا رب عبادي يا راحب رسل المرادي أسخي البلاد والبلاد للمسلمين أنا أجل ما زلت تقتل الآب لكل مسلمين يزال القلوب والبلاد شيخنا ويان المسلمين عن أجل فهم يالك ورا يسقيم يا هذا المنن سواك فاسقي في زمن شيخنا غنيان نال المسلمين عن أجل يا ذا الكرم والكرم يا لكرم يغطي شواك النيام شيخنا نغطل اللخم يسلي من غينيان نن المسلمين أن أجل إليك بجاي وجيد توصل يا من إليه يلا فسخ بن وجيد شيخ صدق بن غينيان نال المسلمين عن أجل شسر بنغيان تبارك من سيدنا محمد بخير من صلى سام وطاف بالبيت الحرام أصيل بتاها أكام دفلني نمد البرم قنار نزال المسلمين عن أجل Cheikh Saad Bou ngay ñaan bay ñaanal faqiirim naan maa ngi ñaan ci sama barke maam Seydina Muhammad bil mustawa xayril mudar wal kitaab kal aqar asqil bitaa wal akam il muslimin an ajal Cheikh Saad Bou ngay ñaan di ñaan yàlla sunu borom nan wa jaay alil kiram wa sahbi xayril anam أسقي البتاع والأكام وخلل المسلمين أن شفا بغيان بيان الفقير ننهم فقراء والفقير ليس له ليس له سوى الحفيد فجد بأي سكر وزير المسلمين أن أجل زليل والذليل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 والإكرام لا إله إلا الله لفلنين ما دري على السنوبرام ذو الجلال رخيم يا الله لطيف يا الله ذو الجلال والإكرام لا إله الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله I'm Wahira, Ijikulea Mushi, Wadimira, Rijal, Al-Khalil, Rijal, Warabadila, Khalidin,

وسيلة الجمال يا جمال والمتكبرات النساء الذي خالق الخالق المصور وبالحكيم عشقنا ونوي واحسن يا أبصار يا شكر أظلم الدوام والإبداع ليسير نقول الناس ليسير أمين دور سيدنا sami orum siri wa sami ai nyano kari nyano mo shabu siri po ne nyano ma yeah siri ha kari nyano mo kari nyano mo kari nyano mo yeah yeah so Fall waaw ndeysaan ndeysaan ah, li rafet na tey daa dafa te dafa ànd ak sóoram ah toog jàkkaarloo ñun lii daal neex na ba pare fu mu nekk nii ah Moustapha Rassoul émission baa ngi nii kontaan naa ci yow dèjà te dara xewagul gëm nee naa yow moom daga bokk ci léegi ci kër gi ndax macha allah daaw gëm naa ne bi nga fi ñëwoon ah waxtaan ñu ngi koy waxtaane ba tey mm. nga defoon fi lu rafet ah ànd bi yàgg ba tey loo xewlee te boolewoo ci LCS pour yow bokkul hmm. wax dëgg yàlla moo tax it ñu ngi koy rafet lu bu baax a baax di la hmm. jaajëfal ah, j'espère que yéen tamit nga xam ne yéen a ngi toog seen kër ndagu ba pare toog jàkkaarloo la chaîne sénégalaise yéen ni ngi kontaan bu baax a baax lépp ne naa leen lu ñu fi def c'est juste ah, pour bégal leen ndaanaka sax buñ fi waxee

Eh, waaw xanaa di sant yàlla rek. Mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla. dañuy am mbégte ak contentement di teewaat fii ci SCS te yaakaar naa ne ba ma fi dellu see te te ñaan nga ma ñaanoon ca Medinatul Munawwara yàlla mm-hmm. suñu borom def na ko mm-hmm. ndax ba ma fi duggee gis naa fi changement yu rëy rëy rëy mm-hmm. ci caméra caméraman monteur ba ci réalisateur te yaakaar naa ne tey ji am naa lu jafe may def émission directeur général jàkkaarloog man ah. <laughs> xaw na xaw na xaw a quoi dama ci kontaan ah ba tax na wax dëgg yàlla loolu ci loolu dama la koy sant di la gërëm di si ñaanal yàlla ndax wax dëgg yàlla depuis li ma nekk màkk yëpp ñu doon déggante ah, mu doon mbégte ci yow ak contentement. Ah, ba tax na keroog ndeysaan ba ma wàccee Medinatul a dama ci am mbégte lool. sant yàlla julli ci yonent bi ñaanal waajur yi. waaw ñaanal it ki nga xam ni moom moo tax ma gisee ak bi. Mm-hmm. ndax ki la wan yonent bi deselu dara. muy Masek Thiam bëggul sax ma koy tudd. dëgg la euh, président fondation Keur ma koy nuyu ak waa fondation bi yëpp. Mm-hmm. ndax li may yéem ba ñuy wàccee guddi vers faisait vingt fekk la ñuy julli gee ba noppi. Mm-hmm. Ah, ñu ànd dem saal sax ñu ni xaar leen reer man ne man taluma reer naa boo ñëwee ci dëkk ba nuyu borom dëkk ba pare <laughs> mu sangu fat fat jàpp rek dugg ci jumaa ji jumaa ji rëy macha allah man nag lenn rek moo ma intéressé woon mooy gis yonent bi dëgg la ma ñëw laaj ci bunt bi di laaj ci bunt bi di laaj ci ñu naan ma da dugg fii génn fii ba bunt bi ñun ma bunt bunt bu baawu salaam la nekk mm. boobu géeg ngay dem direct ci yonent bi boo ñëwee ba ci moom rek bunt bi ubbeeku nii ma tàllal sama loxo ni ko asalaamaaleykum yaa ah, wax dëgg yàlla man nuyuwaat ko asalaamaaleykum yaa rasulallah comme ni ko ñëpp di defe rek mais man dama ci am lu spécial mm. ma sentir sama dem di riir yonent bi di ma di ma fay nuyoo naan moom waaleyka salaam alaaji Moustapha Samb sama géwal ba may woy fa Sénégal barke yonent bi ah foofu nag jotuma sax yegg ndax ba nee ma mi ngi nee rek man daan naa leen ñu sotti ma zam-zam yóbbu ma. <laughs> dëgg la macha allah. wallaay wallaay wallaay en tout cas loolu ah dafay nekk lu neex lu ñuy waxtaanee ndax nee naa ku ci nekk loolu ngay ñaan boo am ko daal di dem ziar ko bu baax a baax alors kon yow euh, dañ lay aussi remercier parce que tamit nee naa yow tali bi loo ci boolewul daal. Ah. bu duggul say mbir daal neexul. kon moo taxit ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax a baax. balaa nag ñu ñëwaat pour laa soppee comme ni ma ko waxoon euh, mën ngeen woote aussi en direct 88 628 71 71 ngeen jàll en direct su ko defee di ngeen mën a waxtaan ak Moustapha Rassoul ñu gis nag daaw. Hmm. nga defone sa anniversaire mu la muy la première édition nga def ko Sorano. Mm-hmm. macha allah yëfi fees dell. Mm-hmm. ñu bëggon xam nak première édition bi daaloo est-ce que yaa ngi parewaat lu mel non waaw anniversaire bi daaloon yaakaar na mi ngi tombé le 18 avril 2014. Mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla damay sant suñu borom fofu bu baax ndax dama togon ci xabru Cheikh Cheikh Sadbou. ma gannaaw ko man gannaaw yàlla ak yoonte bi wajuri waajur yi ko du Cheikh Sadbou. ma ni ko damaa bëgg ñaari ñet ñett benn bi moom mu ko gisee sax baax na <laughs> muy 2014 bi yàlla defal ma ko ah, ma ni balaa ma am 30 ans ziyaara ji bi mm-hmm. yàlla defal ma ko teg si tamit ma bëgg 30 yi ma feete ko Sorano woo sama xarit yi soppe yi am di jàmm kenn du fay dara mm-hmm. ah ma def ko nag daaw nag franchement LCS jàpp ci mm-hmm. télé yi yëpp jàpp ci mu am réussite totale nga xam ni àddina yëpp ñu koy coow ba tax na bu ren bii defuma ko ndax programme yi xat-xat yi sama waa kër ni ma dee ko def par deux ans waaye ñu bëri dañu meroon pour ma koy def annuellement mhm. mais par la suite ma ni naa ko def par deux ans may sant nag ñi si jàpp ñëpp ndax du man kase surtout ñi nga xam ne ñii laay àndal man nee la tey ji euh, fu ma jëm rek ñoom ñi dañu envoyé ay message seen ay soppe woote leen ba foofu ma envoyé man pour bés bi ndax daaw ba ma taxawee ni ñu gagné billet bi dama leen ah billet baa ngi ñëw ñun ma amul luñ ci wax yaay dem demal ci yonent bi bu doon ñaari billet la sax may nañ la ko mhm. ba tax na tey ji ñun ñii ñëpp nag jaaroon SCS tey ji ma wax la yokk nañ ba yëg ko

daayira bi bu ma wootee kenn fi xaj dëgg la kay mais ñëpp dañu yàlla daal ñu ngi ñaan yàlla ba beneen yoon daal mhm. bu ko defee rek incha allah plateau yi sax incha dina am comme ni nga ko waxee yaa ngi ñaanal bu baax a baax li nga xam ne mooy euh, la LCS alors euh, ñu ngi waajal li nga xam ne mooy euh, benn plateau bu mag su ko defee nag ñu mën ci dalal ñëpp pour ñu waxtaan bu baax a baax lu ñuy def rek mooy am na benn woyu daal bi nga bi nga bi nga bi nga may woon fondation Kër Rassoul ma mooy soppe nag bi. waaw am na bu bees sax bi génn. waaw bu ma gis fan yii clip bu bees. waaw waaw di ko teg mais boobu dama koy denc ba ci fin bi bi ma bëgg daal mooy man sama wóoyu bopp li ma bëgg ah xam nga nabi macha allah ñëpp ko bëgg. te fu mu nekk nii say soppe ñoo toog di jàkkaarloo di seetaan alors euh, comme ni mu sànq nag Alassane mu may laaj docteur est-ce ma ubbi téléphone ubbi la téléphone bi su ko defee ñu mën a waxtaan ak Moustapha Rassoula 88 628 71 71 kon nga bàyyi ma bàyyi la nga bëggalaat ñu rek su ko defee ñu waxtaan ak waaw waaw waaye boobu nga ñaan moom après dañ si dañ ci dem mm-hmm. ndax loo defoon daaw mu jig la mm-hmm. boo ko fekkaatee war nga koo def kon nag dañuy ñëwaat ci air bi nga xam ne moom la ñu woy suñu sang rek boobu tëjee ci. tëjee euh, yàlla bi nga xam ne daal émission bi sa émission. ndeysaan waaw man toog nii rek jàkkaarloo caméraman mais fu mu nekk sa émission dafa la neex. bisimilah ñoo ngi gërëm. ci lislaam ci ab ngërëm. Cheikh na Cheikh Saad bu ñun ñoo la gëm. jëm ngir ay xëram looloo waral ñu daal di lim safar bi ni mu ñu gindee ci ab ngelam laay laay الشيخ سعد بدا يخرم تلبس عين جولان بحر سلم لا اله الا الله سعدنا سعد الامم ما تخمن شيخنا سعد الامم sunu yaakaar teeg ëllëg cheikh na cheikh saadu la bi zikrul ilahi rek la gëm silaayi ku bëgg gëm saaduna saadul umam ñun taalibe yi su koor gi jotee ba taalibe yëpp ay waajal mutalin shaawaat ba ca saalixiina laa ilaaha illallaah ñuy sàkk ñaan di nangu ñaan cheikh na cheikh saat booy faj aajoye ca saalixiin ñun taalibe yi su gi jotee ba taalibe yëpp dajaloo ca jullikaayu ba بألاقي شيخ الخليفة ورجلينجي لا لا لا لا أشرح آه، للهم كمرخبا أهلا وسهلا ومرخبا شيخ الخليفة كلين ومامم ألاقي شيخ سيدي بيبرم جرينجي تنزاف دفلني ما قلب باري شيخ طالبو lu waykat yi way way way way way cheikh na cheikh Saad bu dañuy tàyyi bàyyi cheikh Saad bu moo doon maamam rasulullaay ni ñëppay bëgg a way way la war na maaw war dépp jaam cheikh na cheikh Saad bu xam nay maam ñu taalibe yi man ala alaaji Moustapha Samb dama xër li bind way ci cheikh na cheikh Saadi la bi waaye cheikh Sidil Xayri moo ko njëkk a way asaadal ilaahi wa saadal wara cheikh na cheikh Saadi la bi firi texe keroog ba cheikh na cheikh Saad bu di wax ak gouverneur ba monsieur Koppalaani Candar ko parani diro pilo pi munan ko dalal dalal ndar gi do fi parane ndar géej maa leen fal ñu doon ay xaamis quran cheikh na cheikh saad bu xam nay mayam moo tax ma ni lu waykat yi way way way way way cheikh na cheikh saad la bi dañuy tàyyi bàyyi cheikh al xalifa sama moo doon maamam rasulullah yi ni ñëppay bëgg a way way la war na ma war bépp jaam cheikh na cheikh saad bu xam na imaam moo tax ma ni génnu loo cheikh na génnu loo génnu loo génnu loo cheikh na génnu loo génnu loo cheikh Oh yeah!

waaw boo fiilu tuuti di faxasu waaw daa daa dañ ma doon xas naan ma tuuti li ngay faxasoo ah. ma nekk di ren damaa rek bëgguma moo tax it mais yëf yi neex na ba pare gis ngeen ko alors comme li ma leen ko waxoon tous les samedis soir tey nag nii lañ ko fas yéene def tout le mois du ramadan dinañ bégal bu baax baax en tout cas vraiment kontaan nañ te fu mu nekk ni nag ah ah Alhaji Moustapha léegi laay wax hein ah, Aladji Moustapha rasou dama bëgg mu noppalu ko est euh, ce qu'on va faire c'est avec la complicité de la régie son tout dernier clip bi nga xamné mu ngi koy dippee. yalla euh, yàlla yee alors moom nak la bëgg ñu daal and découvrir quoi yeen mi nga xamné depuis 28h30 yeen a ngi tok jàkkaarloo ñun su ko defee nag ñu daal ñëwaat sur le plateau ou nak téléphone yi waxtaan ak à tout de suite. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو المالك القدوس سلام المؤمن المؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر سبحان الله عما يشركونه والله الخالق البارئ لا اله الا انت يا لبجو مصور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو عزيز الحكيم يلي يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله ذو والإكرام لا إله إلا الله ربنا ويا لطيف الله يا رزاق يا الله والإكرام لا إله إلا الله إلا الله

yàlla kenn nga yàlla kenn leen ko mooy waaxiduna borom do ci sëy mooy màggal tur yàlla ki lay ray ci doo ko gis yàlla kooku mooy waaxiduna yàlla borom jaam ñi soo ko ñaanee mu may la yàlla yaa raxiim soo ko ñaanul mu mere la allah la ilaha illallah neex na trop macha allah Moustapha Rasoul téléphone baa ngi toj sànq ba tey loolu lañ nekk di ma wax euh, fu nekk nii ubbi nañ ko. 28 628 111 111 allo. allo salaam. ñu ngi delloo ziar bu wér sëñ bi. wàññi da wàññi sa télé su ko defee nga daal di déglu ak téléphone bi. wàññi sa télé bu baax su ko defee ñu dégg la. waaw yaa ngi ci jàmm sëñ bi. dégg ñu ne leen yokkal baat bi. man euh, sant yàlla ak xol bu sedd si yéen. li ko waral mooy. waaw jamono jii. Mhm. daanuma jàpp ay fees di ko seetaan ñu ci weeru koor yàlla rek tey laa mos a jàpp ay fees seetaan. bi yaa ngi bi. bëggoon naa nga wàññiwaat bu baax sa tele parce que ñun fu mu nekk ni Moustapha Rassoul ngi bëgg a waxtaan ak yow mais dégguñu la. waaw dafa waaw kay baat baa ngi ñëw nag da ngay wàññi tele bi bu baax ñu déglu ak téléphone bi. voilà fi ma nekk moo xaw a dafa réseau day xaw a jafe moo tax mais wàññi ko dama coupé son bi sax. waaw. bu tëddee ni heure bii ñu fi ma jàpp LCS pour waxal yàlla rek ñu ci weeru koor waaye tey dama leen jàpp dëgg la. juste pour ngeen xam lii mooy ñooy jërëjëf. jërëjëf te xam ci kanam danga nga ne ci weeru koor ba ngay yem mais warul dem ci weeru koor war ngeen ko génne. dëgg la de dëgg seen programme. Mhm, mhm. kooku mooy ma lay yóbbante yow di la féliciter tey ci initiative bi. ah merci beaucoup c'est gentil. ki nga xam ni xam na ma xam nag bu ma lay moo xam na fi may waxee. dëgg la. dama ko soog dama ko bëgg sama xol ndax li muy def ak li muy wax ci Seydina Mouhamed. macha allah. Eh, Mouhamed maa ngi ziar man sa mbokk nga mhm. xam ni su bëgg doon promoteur u xam nga fu may de. waaw ñu ngi leen kontaan di la di la ñaanal yàlla yokk sa wér. amiin amiin waay. di la baat bi ba def nga ko continuer bu baax ndax ñu ñu ngi lay suivre ñu ngi bàyyi xel ci yow. amiin waaye nga sa sëriñ waaye nga sa dinaa Muhammad waaye nga yàlla. amiin waay fi nga ko teg foofu rek la. dëgg la ñun say say way dañ ci jàng. Mhm. ndax ku la gis xam ne ci un jeune diplômé am nga bac plus deux trois quatre je sais pas mais terewul yaa ngi jël yoon boo xam ne tey ku la ci xool dinañ naw ndax yiw nga ci jekk nga ci yaa ngi ci jàngale yaa ngi ci yeete te loolu mooy a jeunesse saine mm-hmm. ñaa ngi kontaan nañ ci yow ñu ngi lay teg di la suivre di la maa ngi bàyyi bi xam naa bi man rek maa dugg bi mais kontaan nañu daal ci waa LCS ak wax wax bi rafet na loolu te in incha allah dinañ ko continuer nii ndax wax naa leen ko ah. waaw waaw ñu continuer ko nii kon koor gi bu dee. Mm-hmm. ñaan waxoon naa ko daaw. Mm-hmm. xam naa ak programme yi tout le temps télé moom ku ne xam na ni muy liggéey dëgg la waaye ak lu ngeen xat-xat xat moo koy wax directeur général mm-hmm. nga xam ni ngeen boole ci diine ji parce que bu mm-hmm. dee benn yoon ci weer wi sax wala chaque deux mois ngeen def ko benn passage dina am solo tam tànkat yonent yi lii rek incha allah comme ni ma leen ko waxee am na benn plateau bu bees tàkk bu ñuy euh, ay plateau yu mag ko defee ñu ma leen dalal kon ñu continuer jël téléphone bi allo. asalaamaaleykum maaleykum salaam. dégguma la bu baax. soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu nag Moustapha Rasoul sama xarit. waaw. sama góor sama xarit. maa ngi soxna Daba Ndour. nuyu bu sëñ góor sëy. waaw gis nga. sama xarit Moustapha ziar naa la. waay waay muy delloo ziar baax soxna Daba. maa ngi nuyu sama sœur boobu nekk sa wet na ko na ko. wallaay màgget waaw waaw c'est vrai. ndax xam nga yow yaay sama góor. loolu am ànd ak sama kook sama xarit la. ndeysaan di la jaajëfal di la ñaanal gudd fan ak wér. amiin ak wér gu yaram wér wér lu jàmm ji sax dara. waaw amiin yal na la yàlla doon amiin kontaan naa di la ñaanal yoon bi leer macha allah soxna Adja Soumane mu ngi lay nuyu. kooku moom dafa kontaan ba may la doomam.

tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kooku lépp moom la suñu ñaari ñoo ngi koy ñaanal bu du fan ak wér jërëjëf Samb kontaan naa yal na la yàlla yëg nga ma fonk nga ma faale nga ma macha allah merci beaucoup merci beaucoup à vous en ah, tout cas soxna Daba kontaan naa très bonne soirée à vous waaw ndeysaan ku baax ñi ñoom ñooy soxna Daba bi nga xam ne mhm. ñoo ànd ak suñu ki nga xam ni production bi nga def clip bi ñu doon seetaan léegi moo def tout moo def production bi macha allah tout ce qui est technique lu ci waroon mm. yëpp ci moyen technique financière yëpp moo ñu ko def keroog ah, ñu dem pour tourner daf ma wayal ma tour yalla rek man ma xër sax duggal ci tour <laughs> waye tour yalla rek doguma légui xañu continuer rek jël téléphone bi 88 628 111 111 allo allo maaleykum salam dama bëgg ngeen wañi sen télé bu baax baax ngeen daal di déglu ak sen téléphone allô sëñ bi dégguñu la da ngay wàññi sa télé bu baax a baax nga déglu ak sa téléphone allo. oui maaleykum salaam. ñu ngi lay dee delloo ziar bu wér waaye doo wàññi télé bi tuuti. allo. da ngay wàññi sa télé bu baax. waa kay noonu la yaa ngi ci jàmm. noo noo tudd ak ngay woote. waaw maa ngi tudd Bamba Diatta eh, sëñ bi. waaw sëñ bi la de. waaw maa ngi ñu ngi delloo ziar bu wér da bëggoon waxtaan ak Moustapha. alors dégguñu ko ni ma leen di ñaan boo leen di woote ngeen sori télé bi ngeen wàññi seen télé bu baax a baax ñu daal di déglu nag ak seen téléphone su ko defee ñu daal di waxtaan mu gën a neex kon balaa ñu soro li may def mooy di jaajëfalaat bu baax a baax nee naa leen ku ma génn ci muso yu rafet yi muy les voiles de soxna mu nekk soxna su yaru soxna su baax soxna su mën lu muy def bu baax a baax képp ku bëgg ci euh, musóor yu mel ni da ngay woote au 77 205 56 68 boo leen fa demee ah les voiles de Soxna dina leen defaral lu rafet mu ngi dëkk fële ca lycée de la Fosse commerce en face canal 4 moom tamit nee na mu ngi jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne mooy rakk xolom di sama xarit muy euh, Sali Ndiaye banaa may ñëw ci loolu ma jël ki nekk ci ligne bi allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa ma gënoon ñu boppam ila rasulillahi. waaw waaw. li topp yi fas yi wala takundoo. Cheikh sa saaf la di nee ah, na. ah loolu la. waaye nee na Faye Fatima Batour. waaw Diaw. wal xaalu sayyidi lawal min al xudooloo ma bëgg Muhammadu Rasulullahi. não Ah, ninguém o Benel, o outro não o Benjub, guarda aí, corne. wallaay wallaay wallaay di nga bëgg émission bu baax. ah waay kontaan naa waay Cheikh Ibrahima. di la di la di la ndokkeel. ah di kontaan bu baax. Cheikh di la ñaanal di leen baalu ak ci weeru koor gi. wallaay ñu lay baal bu baax am loo xam ñëpp ak di ñaan ci barke Seydina Mouhamad. yàlla nañ ci duggee ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin. amiin amiin yaa rabbi yàlla may ñu ñu mottali suñu yéene ak suñu mbëgg ci seen Cheikh Ahmad. amiin amiin yaa rabbi ak kat gi ñuy tagg yonent bi gaa yu baax yi waa ci Cheikh Ahmad Bamba واكل جسيد عجي مالك واكل مام باي نفس واكل الإمام الله واكل فينا إن شاء الله يقل جبت يق يالا ميني بني إن شاء الله يما السلام عليكم يواك كابتا مسيدنا محمد يونا غا بحرك فتوح تيري يالا من تما سنوان فور نكت لو نكت نبي جلزنا بالله والله أزم ndax tagkat yonent bi yëpp benn lañ yoo def mbay boo ko bàyyi damay wax ni sayidina muhammad asamaan nga bët bi ci buuxante naan sama doon toppal ma xool déedéet. dëgg la jaw ndax yonent bi bu melee ni asamaan foo taxaw boo si boo boo tiimee rek da ngay gis asamaan si. dëgg la ba wax dëgg yàlla am yàlla may na la am nga yar am nga teggin. Mhm. am nga diine wax dëgg yàlla kenn xamul ci jël-jël yow daal li nga bëgg ci Seydina Muhammad ñaan na ko yàlla. amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay sant di la ñaanal di la gërëm. di ñaanal waa SOS tamit yàlla yokk leen. jërëjëf. télé bi yàlla nañ dem ba doon ay télé télé ci barke. amiin waay amiin alayhi salaatu wa salaam ak mboolem télé bu nekk ci dëkk waaw waaw jërë ngeen wax bi rafet na. na kooku Cheikh Ibrahima Diaw di bu mag. ndeysaan euh, ñu ngi koy jàllale si télé yi depuis démb ba léegi mu baax teeroo ma teral ma Ibra daal yaa xam loo bëgg ci yorante bi mhm. yàlla naa la teeroo daal ci sallallahu alayhi wa sallam incha allah waaye ñu ngi lay nuyu <laughs> en tout cas yëf yaa ngi ba tey téléphone bi ay buuxante la mais maa ngi ci nuyuwaale sama magu xol Omar Row bu Cheikh Béthio bëgg naa nag nga dugg en direct waxtaan ak ñun kookoy borom 2STV. ah kooku nag foofu ma taxaw fa tuuti. <laughs> waaw mais daf am na nag ku bëgg a waxtaan ak yow. Ah, ne ko <laughs> allo. alo oui. allo. allo asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi wàññi sa télé. waaw jege ma télé bi ko. jege woo ko. jege ma télé bi de. waaw kon yokkal bi. waaw maa ngi leen di ziar bu baax ci weeru koor di ziar bu baax El Hadj Moustapha ndax ku baax la. waaw ku yaatu la ku am yëg-yëg ci nit la. man mii wax ak yow nii laa boo xam depuis bi ñu xamante ba léegi daf ma jàpp jàppal ma boppam ba nga xam ne si léeg-léeg damay toog ba mu yàgg sax damay am gerte sax. yokkal yokkal baat bi encore yokkal baat bi tuuti rek. ku baax la ku yaatu la wax dëgg yàlla. maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax li mu bëgg ci. maa ngi ñaanal ci lu bari ndax loolu li koy dindee rek ak mbaax mooy ñu boo paasee heure bii dafa ba man ñuy mujjee ñëw laa bokkoon te aw ma woon sax place fu ma toog. dëgg la gis nit ñi bari sax mbooloo mi. sama xol dafa sedd ndax def naa 30 minutes ki ma taxaw soogaan bi am place pour toog te loolu ku baaxul wala ku tegul fenn nit ñi mënu ko am ndax mën nga xew la nga luyee Sorano wala nga luyee Grand Théâtre wala nga doon beneen place mais nit nga fay ñëw di la teewal mënoo koo luyee kon am moo waral loolu maa ngi koy jiyaat bu baax a baax di ko wax ni ko Bamba création mooy woote xam naa bu déggee dina xam li sama mag bu baax wax dëgg yàlla di ko baax ah, maa ngi koy lu bare bare bare tamit ah, ngeen daal di wàññi seen bu baax a baax Alassane tamit nga daal di yokkal tuuti su ko defee ñu gën a dégg ñu jëlaat keneen nekk ci ligne bi allo. allo oui. ngi ziar bu ñu ngi delloo ziar bu wér waaw. alors coucou nous Demna, continuez continuer au 88 628 111 111. alors di continuer di comme may bu ki nga xam moy soxna alors Saline Ndiaye madame Ndiaye Bintou manglendi len di jaajëfal bu aussi soxna qui fait un gros coucou à Madigene Mangan, Mangane à Aïssatou chérie du nee na plus particulièrement les employés de. Samres Sénégal alors di ko may tamit xale dolce yi nga xam ñu ngi may seetaan géwlu fans bi muy màgget seen nee na manqué may Mariama Diouf Seyna bu Sa Kumba Sarr Binta Cissé Fama Thioune Seck nga xam ne jamono ji mu ngi ñuy seetaan kokoy borom TFM Pape Cheikh Diallo fàttewu ma leen abano stress Sen TV bépp kuy tele ku jàkkaarloo man maa ngi lay jaajëfal allo. allo. oui. salaam. ah man la borom cheikh moustapha samb waaw di di jëkkëru cheikh magat samb ah macha allah ah, sunu oustaz dëgg la maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax sëñ bi ah mbokk gi yëpp njaboot geeg famille bi yëpp ngi toog nag di leen seetaan macha allah kontaan naa de ñoo ngi ànd ak papa Ablaye mhm. samb rakku rakk la ci alaaj moustapha dëgg la ñun ñëpp a ngi toog di seetaan émission bi. macha allah rafetlu ko nag lool. jërëjëf. gërëm ñi mu bokkal plateau bi foofu. tëggkat yeeg ñëpp. macha allah. di la sant bu baax a baax. di la delloo sant bu baax a baax. ah mbir mi nag Cheikhna Cheikh Sadbou rek la. waaw. li mu wax léegi. alhamdulilah alladi liya wahab. ilman wa xilman wa tuqaa kaza nasab. kooku Cheikh na Cheikh Saad rek la ko wali seddeel dëgg la moo tax bu mu nekk génnoo giiru awliya mhm. wal awliyaahu kulluhum liya shahada képp kuy wali yu teg tànkam ci kaw suuf rek sedd na li mu wax mhm. ñoo ngi koy ñaanal yàlla nag ci lancé bii mhm. mu jëm kanam rek incha allah yàlla am na ngërëmal waajuram amin waajuram a ngi nii toog yaayam dend ak ah macha ah ma jox leen ko. waaw waaw waaw jox ñu ko jox ñu ko ñu waxtaan ak moom. allo. oui allo mama. Ah, ñu ngi delloo ziar bu wér. waaw man nag maay tantam. waaw waaw waaw mais mais mais mais mais sa doom nee na fu mu nekk danoo bëgg nga taggal ñu yonente bi. waaw léegi léegi taxaw tuuti ma jox yaayam rek mu may leen benn waaw. Moustapha ñu ngi ziar bu baax. Adja Siga maa ngi ziar bu baax sama tante. Maguette ñu ngi ziar kontaan nañu. kontaan naa Siga vraiment ñun ñëpp a ngi toog ci saal bi di déglu. macha allah mu kii la. macha allah. salaamaaleykum. maaleykum salaam yow bul wax tàggal yonent bi rek. asalaamaaleykum Moustapha ñoo ngi ziar. maaleykum salaam maaleykum salaam. kii ak soxna su baax soo su sa dendaloon daaw dendal moom ren yàlla na ngeen daan dén déw yu bëree bëri ndeysaan walaay dolce yaa seex màggat ak may euh, la ah ah yaa ah, fi yàlla saxal amin amin rek laa leen sant mooy yonent bi rek ku ko mhm. woyul perte nga dëgg la sallallahu wa sallam yal na leen yàlla may gudd ah, ma non yaay yëkkatil ma tuuti rek ma kontaan. nee laa yaay booy. yaay booy yëkkatil tuuti. allo. bu nekkoon sama yaay mère Khady dina yëkkati de te nga maa yëkkatil. allo. oui allo allo. Cheikh Moustapha li mu woy. dinañ ci yokk lenn. dëgg la. yaa man tanazaha bil kamal an waladi wa walida qussa bil baqaai wal qidami. bi say ay kuukil qadimin am nadin fa jashin yaa dam damad dam damad xaqaas yaa ahamin بارك لنا عرضنا باتباع عجلي وهب لنا نعمة طولا من نعم واترد لساكنها من السباع ومن الأقارب والحياة والسقم واغفر الذنوب والذنب مما عند الزلف وزد صلاة على المختار في القدم ما شاء الله مصطفى جرد جفتي rek شعنا شخصات بوي kii mooy weeram tey ñaar fukki fan ak benn la génn àdduna ci la ko Bachir ibn Mbarik way wayam bu rëy boobu maa ngi déglu nag Moustapha mu wayal ma ko waaw lillahi maadifin min nafisi wa min kunuzi zari al amisi من رمضان صامي عشرين حين هدر سعد الورى دفينا فإما كل سر فيك بحر وتود شامه بدر بعيد شغل الشيخ سعد ربي ولشيخ مؤمن فادر جاك مامن kere ba Cheikh Cheikh Sall mu di génn di weeru koor mu tëmbeeg ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru koor loolaa waral xaadir yëpp bu nim saat jotee ñu wëttali nim saat ba ca saalixiina ñi sàkku ñaan dina mu ñaan cheikh na cheikh na cheikh sa bu di génn weeru koor mu tombeek ñaar fukki fan ñaar ci weeru koor min ramadan saami ishrina in hëdën saadu waraadu fiina masha allah sa sab wax waaw waaw la la la ah sama yaay yi ngi wéy de ah, waaw waaw yaa ahlu nimsaaki yaa man fadlakum baani أين الأناني كبيل شعر رمضان واو لا لا لا إلا لا لا لا لا لا لا إلا لا أهلا وسهلا بكم يا ما خسر شرفا بنوره فضلكم ونور مانين وحياكم لا لا إلا لا إلا لا لا لا لا لا سبجون فصتم بأرض التي سعد وساد لدي فيها وفيها جميع أهل سادات لا لا لا لا macha allah yow lii neex na de yow léegi te ñu maa baara dàq wooy de waaw kii ma maa di daanaan macha allah léegi dama koy tooñ ne ko sa way yàgg yi bi kenn déglu léegi maire yi bu ko man ni ma yow maire weer dàq ko ñun maire weer suñu man na ko yow nangu nga sama fan si yëpp ndax Sorano moom moo ko la ma ma yaay daal dafa wooy ba pare maire yëpp wax na ko yow nangu nga sama fan si yëpp ndeysaan macha allah dol sant yàlla di ko ñaanal moom yaay ak famille bi mm-hmm. yàlla guddal fanam ndax lii rek la bëggoon moom lii rek la bëgg bi ak sunu papa Oumar Ndiaye xam nga sa papa doon taalibe Cheikh mm-hmm. nekk euh, taalibe maam rawaan tegal foofu sa loxo <laughs> allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi ci jàmm bu baax a baax sëñ bi. ñu ngi ziar tey rafetlu émission bi ci lu bare bare. ah jërëjëf sëñ bi. di leen di leen di leen gërëm di leen sant. jërëjëf. di rafetlu Moustapha man euh, sa turandoo. waaw sama turandoo borom borom màkk ak nit waaw borom màkk ki di dëkk bi. macha allah. <laughs> waaw yéen euh, dañoo dañuy kontaan lool vraiment kontaan ci émission bi. Mhm. ndax macha allah tabarakallah depuis bi ñu ko waxee ba léegi amuñu jàmm ñoo ngi doon yàkkantoo heure bi jot. ah macha allah. ñu ñëw seetaan janoog yow. Mm-hmm. ndax xamoon naa ni di nga yi Muhammad la alayhi wa sallam. ndax am ci moom ak bëgg ko. di ziyaar jarbaat boobu di màgget. di sama xarit. di sama soppe. di leen ñaanal yàlla na yàlla defal leen jàmm. amiin amiin. ñu koy teew ay déwén yu bare bare. amiin. su bëgg yegg ya, yàlla la suñu borom yeggal man sama njaboot sama jabar màgget ak xemes ak roqee roqeyaa ngi nii janoog yow kontaan lool ok ya, nee naa la sama sunt number one mooy sama waa kër yi jazakumullahu xayran ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ah sama sama yàlla am am roqee moo bëgg a wax ak yow Moustapha waaw ndeysaan waaw paas ma ko waaw roqee waaw maa lay ziar yaa ngi si jàmm. waaw. nam naa la. maa ngi si jàmm. baa yaa ngi woor. yaa ngi woor. waaye lu neex la. ah waaw <laughs> yow ban ma sa waay ban waay nga bëgg ma la ko. jërëjëf ñoom <laughs> dinaa ko wayal lool jërëjëf ñu ngi lay bu baax baax sëñ bi. ñu lay jaajëfal bu baax a bi ki doon woote léegi nijaay la. waaw ñu koy ziar bu di ko ñaanal di ñaanal soxnaam soxna Maguette suñu cousine bu baax ndeysaan. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ku baax suñu Maguette macha allah. di ñaana suñu yaay nax Adja Marème Diané lépp moom la nax dégg nañ sax si mag ñi ñun dañu doon nàmpal sax teg tabala di tagg yonent bi bu mm-hmm. daan nekk kër ga sam papa gis ni ñun ñi dañoo bëgg yonent bi di ko tagg dafa dem jëndi rajo takkal nu dem defar nu ay tabala pour ba ñu génne di dem foo yi wala def nangam dañ daan tànkale mais mu ni comme que bëgg ngeen nii xaar ma dem wuti tabala te bu ko neexoon mu ni taalibe Cheikh mm-hmm. ah, waaye taalibe maam rawaan léppam mu jël àddinaam yëpp jox ko maam rawaan ba tax na jël doom bu góor tuddee ko Seydi Aji rawaan sama yaay sama papa maa koy ñaanal bu baax waaye sunu yaay moom ba léegi bàyyiwu na mm-hmm. ba léegi nii nii nii nii mënu dàq jàng macha allah ba léegi nii macha allah wane na wane na ko génn xasida yi <laughs> léeg ñu woy sax daal di def yenn kii mu ne du noonu teg leen ci yoon lii ak lii ak lii kon dañ koy ñaanal di ñaanal suñu goro bi El Hadj Tidiane ndax lépp lu ñu fi woy ci xasida mooy ko saas mhm. moo ñu koy bindal ak nday euh, anta yàlla guddal fanam ak mhm. suñu jarbaa bi ñu doon maye ba ci démb rek ñaaya saar yàlla defal ko madame Ba ak bonoom këral malam malam yàlla defal leen xéewal ak teranga amiin waay amiin en tout cas rafet na bu baax a baax ah j'espère que yéen a ngi kontaan fi ngeen toog euh, temps bi heure bi léegi mu jot mais balaa loolu sànq ñu ngi doon euh, wax ci omoro bu Cheikh Béthio nga ne ma doon ci tegal foofu sa loxo. Mm, waaw waaw omoro nag loolu moom man tey dafa mel ni maay def émission bi. dëgg la franchement. dafa nekk nit ku baax man damay dem ba mu mm. yàgg man ko boy man yaa ma gën quoi. Mm-hmm. chaque jour mi ngi sama kër te man mm-hmm. xaw ma fu këram. Mm-hmm. mënu ma la wax fii lay yeewoo. man naa la oto biñ ko joxoon terale ko ci yonent bi man sama kër la ko jëkk gaare macha allah ka dawal ba sama kër umaro keroog ma jóge màkk lépp lu fay teraanga jus mu daw indi bëgg ma lool di ma teral léeg-léeg mu toba saag ni moom Moustapha ah may nañ ma ñaari jees neer de benn bi yaay borom macha allah ko jël si mais moo ko indi ba sama kër di ko ñaanal euh, yàlla guddal fanam ndax franchement ku ne xam nañu tàggkat yonent yi fii am na benn lancé bu ñu demaat mm-hmm. moom liggéey na ci loxoom bu baax mm-hmm. nekkoon fii ci LCS di ci bay waaram mm-hmm. ba nga xam ni tey jii yokkute daal lañ koy ñaanal Omaro yaa xam loo bëgg bëggul na ku du Cheikh Béthio mm-hmm. bëggul bu ñu demee programme nit ñi bu ma gisee dañu fe ne Omaro léegi mu ñëw ndax dafay sama xarit yow nag xam naa ni yow non moom man moom daa bokk ci man <laughs> ndax yàlla def na ni presque ay ay ay mbokk leen ndax ci sama côté yaay ah Omaro xam nga ne daf daa njool nii rek man ak moom ma gàtt mu njool <laughs> ma sorante wu ñu sama yaayu ko gën ma am boo xam ma uh-huh. toog ak sëriñam Cheikh Béthio gërëm ko mm-hmm. gisee ni ñuy ni ñuy tatangee Omaro dañ ko bëgg ba gémmeewul dañ ko bëgg mm-hmm. kon Omaro fi nga teg sa tànk foofu la dama lay ñaanal bu baax moom bu ma gisatee dootul na ma ay woy man nag maay woye ma te ku baax ku mu xam ci dëkk bi mm-hmm. jàpp sama loxo ni ma kañ dem diw ku baax la nit kii da nga war a xamanteeg moom yow man su ma changé oto six mois waaw billaahi mun ma man ma changé oto six mois yow deux mois bu ne war oh, ma xam ak si maire mhm. xam ko bëgg tout le temps mu koy wax moom it moom baax bëgg nu wala mhm. daal bu may wax fii ci yow ba suba lu mu mën a wax fii ba suba ci yow du ma ci ndax franchement gis naa fi ngi ma jële gis nga war wax la benn mhm. a moo doon benn femme bu nekk États-Unis daf ma li nettali bu ko fenn moi je ça fait des des des années ñu indi pour ma faju du ñu jël téléphone Allô? Allô? allô ñu jël keneen kon ci ligne Allô? allô allô? Allô? Allô? Allô? Allô? daa mel su ko defee mu daal di dogaat au 88 628. waaw waaw rek dafa am loo xam ni benn femme bu nekk États-Unis fii la nekkoon ay parents yóbbu ko pour mu faju ji. Mhm. mais faju na fii ba sonn faju foofu ba sonn mënul wér. mais nee daal dafa gént guddi fan yi rek la ma war na ñëw Sénégal ci biir koor gi sax loolu la ma waxoon. Mhm. mun ma dama tëdd guddi gént yonent bi muy ñëw ci man. Mhm. yaa ak Omaro ngeen jàpp seen loxo ngeen jàppante ay loxo di ma tàggal yonent bi seen baat laa doon dégg. nee na yàlla def mu xëpp ci nelaw rek. taal télé bi rek sama clip jàll clip bu Omaro tegu si nee na muy jooy ba jot ma fexe na yaakaar naa ci tele bi la woote. Mhm. woote ba nu jox ko sama numéro. mu woo ma kon loolu mooy wane ni maag moom suñu kóllëre. dëgg la euh, lu yàgg la. Mm, kon Umaro yaa xam loo bëgg ak ñoom dégg daaj ñoom moor yàlla defal leen ko ci sa barke Serigne Cheikh Béthio ak Serigne Saliou xam naa ne fu mu nekk bëggoon na dugg mais daanaka sama frère la crédit la amul waaw ah. bi daakale kàkk <laughs> moo tax mënul dugg man nag ma neexee tooñ ko ndax sama frère la te ci ñoo bokk benn koy dafa baax ma jëlaat alors lu ñu def mooy daanaka temps bi daf ñu def fu mu nekki nii nag foog ñu tëj ah benn woy bu neex dama la bàyyi rek nga xool lu ñu tëj mais banaa loolu ñu xol rek est-ce que am keneen ci ligne bi ah allô. allô allô. oui. Moustapha Samb. allô maa ay jaar ba te Moustapha Samb. waaw. waaw man la Cheikh Mouhamed Lamine ah alaaji alaaji Cheikh Lamine Thiam. sama cheikh màkk. maa ngi lay ziar baax. أنا أبو بكر baax Thiam Thiam. man de sama xarit Aboubacar bi dama. waa abu waaw nam naa la waay an sa yaay yaay si jàmm ah yow moom sa waay bi du ma fi jigee te ma ko ndax xam naa ne su ma ko wayulee ah beneen kilib ah amul benn problème ma waay la jeex na Aboubacry Sadikhin Mouhamadou Moustapha maa ngi ziar. Ah, Adja Fatou maa ngi lay ziar Mbaye. ñëpp kontaan nañu ñoom Maakat maam Diop ak ñëpp bëgg nañu. di wallaay xam ñu ngay woote a ñu seetaan ñëpp a ñu kontaan naa Ndiaye Diatta. macha kontaan nañu. ah kontaan nañu bu baax waaye Ndiaye Diatta. yàlla sa ñëppale ziar tamit tamit Amadou Thiam masalahnya macha allah ñëppale ziar. itu kontan wallaay. masalah. desa ah kontan naa Fatou Mbaye. Ya, ya, ya. jërëjëf jërëjëf ñii nag dool sama daayira nga xam ne nekk Liberté 4. Mhm. baax loolu bëgg ma am sama tamit sama jigéen bu baax nekk ci Italie. Mhm. wax ami Fati ba ku fan yi mën ni jël arab ji bëri ni ma Moussa Fall ci studio rek nga wayal ma Cheikh Cheikh Allah. ba tax na fan yi yëpp sama gaay yi nee naa leen yërem sax fan yëpp mm-hmm. studio laa leen fanaan loo mm-hmm. ah, di ñaa di di wajal lu bees tamit ci at ni ci koor gi nga xamni single bi nga xamni waaw <laughs> té de xamna ni ne ba naa ñoo tàggatoo ah, tàggatoo allo allo oui salaamaaleykum maaleykum salam soxna si soxna si ma ngi ziar ma ngi delo ziar bu wër mbaye nang ci jaamu ñu ngi ci jaam bu baax baax sha allah ana Serigne mu ngi nii de la déglu ne ko man la Soxna Awa. <laughs> ah Soxna Awa maa ngi lay ziar waay. Soxna Awa Ndiaye Marie. ah Marie eh, kii sama jigéen la. macha allah. maa ngi lay ziar bu wér a wér. lay ziar bu Soxna Awa Ndiaye waay. mbaa yaa ngi ci jàmm rek. bu baax waaye di kontaan bu ah, baax ah, maa la gën a kontaan Soxna Awa. kontaan na guy tey. billaay kontaan nañu bu baax. ñoom ñu toog suñu waa kër sama yaay ñëpp a ngi toog. di la maa ngi jégalu ba léegi ñëwaguma fa. dëgg la noonu la comprendre ci jàmm rek. ñu ngi sant bu baax soxna Awa. man de maa lay siyaar bu wér ñu ngi lay siyaar bu baax nuyu ma soxna Maane ak maire bi. waaw dinañ ko dégg maa ngi siyaar soxna soo fi toog. waaw ndeysaan <laughs> maa ngi leen delloo siyaar bu wér soxna si ne maa ngi koy nuyu bu wér a wér. maa ngi bu baax a baax maa ngi koy siyaar moom tamit lu muy def neex na trop. jërëjëf jërëjëf waaw maa ngi leen di siyaar bu wér a wér yéen ñëpp. jërëjëf dëgg la kay. xanaa di leen ñaanal yàlla yéen a xam ni ngeen bëgg seen xol yàlla na ko yàlla defal. amiin amiin yaram amiin soxna Awa foo leen jublu yàlla fa yiw yàlla jublu. amiin amiin kontaan naa baax loolee ragal si ba ba ngoon jot yàlla na ko yàlla saafara. amiin amiin yàlla dugg nii yàlla ci yàlla def barkeel mm, amiin lépp luñ ci ñaan yal nañ ko yàlla jottali. amiin amiin ci barki yonent bi amiin. jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw pour wax la dossier rek ci li nga xam ne ndeysaan soxna aw maa ngi koy jaar sama soppe boo xam ne la mu mën naa ni musuñu gisee wala bu ñu gisee benn yoon la ci anniversaire ci gàmmu gi nga xam ni fondation Kër Rasul nga xam ni gàmmu gi àddina yëpp ay ñëw mhm. ci ma gis rek bëgg ma sopp ma rek dëgg la ndeysaan bëgg suñu président Masseck Thiam waaw macha moom du ma tàyyi di wax ci moom mhm. parce que xam nga ku la wane lekk yonent bi deseetu la dara ak ay mhm. soxnaam doon bokk benn chambre ma koy ñaan ñoom tontoo Umar benn calaw ñoom ñëpp maa leen ziar bu baax di leen gërëm bu baax ndax wax dëgg yàlla li tax ma doon wax ci album bi waaw li tax ma ak suñu suñu yaay bu baax nga xam ni conférence am bi barki dem Adja Ndeye Ngane ñu ñuy déglu depuis Thiaroy sëñ Góora Sëy sëñ Lamine Bara Fall bëgguma lim nag dëgg waaye pour wax la rek fan yi li ñu fanaane studio bi pa man sax dama ne woon du ma génnee single pour koor gi xam nga ñoom xaadir rek la ñu am te it dañ koy ñaan sax di profité fii bëggoon nañu ay débat yoo xam ne du am sax way ak tëgg mhm. dañuy toog di waxtaane ku ci jan biram Hadj Tidiane Birame Seck ñu waxtaane ci Cheikh Cheikh Saad Bou comme koor la ñu am ak Nimjat ñu koy doxalee noonu waaye single bi mi ngi waaj génn nga xam ni ci du yàgg ante ñu ànd seeg sama mag bi moom it dama war a def singalam

Mustafa Ka bu Golo ak Moustapha ngi deglu ay may bu baax allo waaw Tafa mën na ñaaña. ah. mën na ñaaña. ah ñaañ sama jarbaat borom mariage. waaw na def ñu lay ziar bu baax madame Ba da nga naan madame Ba. léegi la ñu ngi lay ziar bu baax. di kontaan dëgg la ñu lay sant bu baax. merci beaucoup yàlla may leen gudd fan ak yàlla bàyyi leen sunu kanam amiin ngeen dund ba fekkee lépp incha allah. kontaan nañu trop i jërëjëf. kontaan nañ bu baax a baax alors loolu moo nekkoon seen émission li xew daanaka temps bi daf ñu xaw a xoj bu baax a baax man damaa yaakaar ne sax une heure trente yi vingt minutes la. dafa gaaw daa gaaw daa neex wala lu mu neexee la. neex du doy lu neex du doy kon loolu en tout cas man j'en profite pour jaajëfal la bu baax a baax. di la bàyyi rek balaa nga ñu may li nga xam ne nga bëggal ñu. ñu hmm. daal di ko tàggatoo banaa loolu dama lay bàyyi rek nga daal di tamit. ñuy euh, say soppe di leen jaajëfal aussi banaa may tàggatoo. di bëggee bu baax xarit yi am di jàmm yi mhm. spécialement ñu xaar soxna Adja Cheikh Maguette Samb mhm. single bi mu war a def ci Nimjaat bi incha dina génn ci Nimjaatu bi mhm. waaye damay santaat bu baax nag ñi nga xam ne ñooy waa Njaasaan ah, li ko doole ci xalifa ba ba ci cheikh bu xalifa ndeysaan dañ ma bëgg ñoom ñëpp waa Njaasaan fa ma ñaax ñii di ma tëggal waa Njaasaan lañ macha allah sëriñ ko sama xarit bi sa xarit bi ndeysaan kii nii magam day tagg yonent bi Issa Thiam hmm. xam nga rafet na waa Ndiassane ànd ak waa Kër Cheikh na Cheikh Sadio rafet na waaw ñu bokk benn maam hmm. te loolu rafet neex ba dee dama leen sant bu baax di leen hmm. di gërëm nag spécialement suma daayira liberté 4 yàlla guddal sen fan mas Thiam xam naa mu ngi sen mhm. mak lamin cham ño Thiam ñoo ajandoo waaye nag spécialement ñi nga xamni moy suma fondation ko Rasoul na fondation ko Rasoul ku la wane nek yonent bi du doy duma ci tàyyi parce que dafa bax lu muy def wax ma lu muy bof boole ma ci ak ay soxnam parce que yalla yalla guddal sa fan barki dem dañ ma may auto ma indi ko ba ci mom mu ñaaral ma ci contane encourager ma ni ma bi jang ci dawal mhm. kon xam nga lolu loolu dafa rafet te su ma nekkee ak moom tàllal ko suma loxo lu ma ñaanal ma gis ko. macha di koy ñaanal ak sa barki démb la indi def teraanga te fondation bi dañu indi beneen méthode. Mhm. dañ doon def deux voies liberté sii si. indi joxe ndogu yi. ñu teg tabala yi wooy ànd ak ñoom mais ren dañu indi beneen méthode dem di yóbbu ndogu yi ci kër yi. Mhm. di ànd ci sutura. yóbbu lu takku yóbbu ko nit ñu néew doole yi. kon dañuy ñaanal fondation Kër bu baax di ñaanal ak sama sang yi sama sëriñ yi waa kër Cheikh na Cheikh bu yëpp jabootu Cheikh na Cheikh yëpp bu ma toogee fii di lim damay juum ndax ñoom ñëpp bëgg nañ ma chérif yi lu ñu ni Moustapha mhm. ni ñu ni wax ma ka ndeysaan di ñaanal ñëpp daal sama xol na sa xarit ah, ñoom ñëpp ak sëriñ Kër sa soxna maa ngi koy ziar bu baax ndax ku baax mën na la sa soxna rek nga daal waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax di bëggal ñëpp bu ñu nekkee di lim parce que Dolce ñu ngi sant yàlla nag mm-hmm. ndax franchement bu ñu jugee fii dañuy fanaan guddi xat nañu trop trop neen soxna dol ci nag jaañ jaañ ak jaañ jaañ madame jaañ ah waaw monsieur jaañ la moom war nañ koo gis mën naa ci ah. yokk waaw waaw waaw dol ci yokk dootu safati intéressé madame jaañ ndeysaan am na doon cooy su ma ñaanal sa jëkkër ba pare damay ñaanal sa sa yaay sa yaay bu mu gisee ci xew yow yow yow jigéen di woonu mm. dol bu mu dégg ay jàng rek dafay fan ñëpp ah. ji jigéenu woonu kon foo ñu dégg programme bu ma la fekk keroog nga ne ma Moussa Fatel sama nit dafay ngénte lii man nga jox mbir ma keroog bu ma fay jógee mm. xaalis bu bëri ngeen ma terale ay doomu sëti Seydina Mohamed yu baax dol cee yaa xam loo bëgg sama xol seet na ci yow de mm. te bi te li muy def daf ko bëgg mm. boo ñëwee ci télé bi nii du am jàmm dol cee day daw ma nga ca caméra yi ma nga réaliser ma ngay def lu nekk bëgg lu muy def te rek tax kon nag incha allah wallahi di nga yokk ba ko Ismaïla it mi ngi bu rëy dëgg la ñu koy ñaanal mois de novembre nga xam ni wóoruñu ci man ku dul man ak Moustapha Mbaye ak Issa Thiam ak ñooñu kon nag ñu ngi ziar ñëpp di kontaan si ñëpp sëñ Lamine Bara Fall Serigne Gora Seye nga xam ni suñu lépp la suñu yaay Adja Ndeye Ngane Euh, sama yaay am sama surtout sama mère yi nga xam ne laa nekkoon noonu màkka mhm. mais li ñu baax te tey bi neenu coloré màkka du dañ ko ci mère yooyu laa ko ne mhm. madame mbay mi nga xam ne ak jëkkëram Cheikh Mbaye maam Cheikh Faye mhm. ñooñu nga xam ne dañ ma paa yi dañ ma bëggoon màkka ataaya laa fi nekk wax <laughs> ñooy nekk samay xarit kon nag dañuy sant ñëpp di ñaanal télé bi nag di ñaanal directeur télé bi yàlla mm-hmm. guddal fanam. Mm-hmm. yàlla yokk ko woy yi muy tëje nag moom mooy. mooy loo defoon daaw mu digle da nga koy defaat. muy woy fondation Kër Rasoul. Mm-hmm. di ko bëggalee Masek Thiam. ak ay soxnaam ak sama xarit bi. waaw madame madame Thiam madame Thiam muy benn li nga xam ne mooy sama promotionnaire la. ñoo bokkoon école Subdeco. ndeysaan moom tamit ak euh, doomam bu jigéen bi taawam bu jigéen bi. bu tey ñëw ma ko ziar. Ah, ma kon benn euh, lii ah madame Thiam maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Mm. kooku sama rakk wu xol la. magam sama xarit la moom mii sama xarit la mm-hmm. ñu bokkoon euh, benn école muy Subdeco Dakar kon maa ngi lay jaajëfal bu mm-hmm. baax a baax di la wax na banaa ma leen di bàyyi Moustapha soo di leen béggal naa di ko tëjee damay jaajëfal ne naan duma taay di ko wax ndax tey daf maa soppi muy ci voile li nga xam ne moom laa fas yéene léegi continuer ah soxna Maguette léegi moom bëgg naa ci single bi ma yóbbu la ci les voiles de soxna <laughs> ah, bii baax na de waaw bii bii baax na waa kay alors ku bëgg ci voile yu rafet yi da ngay woote au 77 205 56 68 Hein, c'est ça 77 205 56 68 moom mu ngi nekk fële ci de la fosse teg ci mu nekk xale bu ndaw di jang en même temps mu devenir di def li nga xam moy passion muy voile dal li na kon kep ku ci bëgg maa ngi leen di ñaan ngeen dem ci les voiles de Soxna. dina leen defaral lu nice nice di ko may tamit sama euh, yaay comme ni nga ko rek ah mère Aïssata maa ngi may bu baax kooku sama yaayu xol la di ko may aussi maman Yaya Bathily kooku nee naa la moo ma yar lépp moom la di ko may sama yaay yëpp mère Khady Fall kooku tamit moom lañ ma jox kon moom dama koy nuyu bu baax a baax di ko may samay doom Khadija di ko may bébé Dani di ko may sama doom Ami Diagne di ko may Patricia Montero bàyyiwuma kenn ku lim juum xale dolce yi gis naa ne message téléphone baa ngi toj ku ci mel ni Fatima Dieye euh, Thiané ñoom Maguette seen Awa Ngom Adama Wilane ñëpp ñu ngi jéem a dugg rawatina nag sama co-animatrice bi nekk fii ci télé bi muy Tina moom manqué maa ngi bu baax a alors loolu mo nekkoon seen spécial li xew samedi prochain tamit à partir de 21h30 dina ci andalat ak benen danan juste pour faire plaisir kon yef yaa ngóot sama cameraman maa ngi di ah, jaajëf ñoom Papa Kara ëma euh, sama xarit ah maa ngi Alassane à la régie ñep ñépp di jaajëfal bu baax a d'ici là portez-vous bien et je vous laisse écouter une très belle mélodie de Moustapha Rassoul waaw on dit mhm. caméraman yi ñu jaar waaw ak ñoo baax ni suñu suñu wasila Cheikh Al Khalifa doomu Cheikh Hadrami doomu Cheikh Sidi Bouye Cheikh Mahfa borom Ansar mi nga xam ne mi ngi waaj bis bu rëy ñu ko war a def Sorano ñuy def 100 Cheikh na Cheikh lenn ñoro ko loolu Cheikh na kon Cheikh Mahfa ñu la ci ñaanal bu baax di ñaanal nag suma yaay Mariam ñu ñoo nekkoon Màkka madame madame Seck ak waa Sacré Cœur ñu bëri dañ fa ni Sacré Cœur laa dëkk ndax kër alaaji koy min faal ci man bëgg lool kon damay ñaanal ñëpp di béggee ñëpp di kontaan si ñëpp ndax buñ fi nekkee di lim rek duñ fi juum. dëgg la ah jatu lay lay mooy. sa ah, mbir mbaa daal kooku sama mag la ndeysaan moom dafa baax. <laughs> kooku moom sama mag la dafa baax dafa Kumba Magnifica. Mhm. mi nga xam ni Kumba Rasul léppam yonent bi la jàppale Mour Mbadaan. waaw soxna Binat Julie jaar mhm. bu baax. ak euh, Abdou Ndoye. dëgg la Ami Laay Maxtaar madame Seck Adama Mbaye ñëpp ñu ngi ca sant bu baax. Ah, waaw Maroc tamit waaw Maroc waaw Binat Binat mu ngi ñuy seetaan en direct sur sunu tv mhm. point com. naroon naa fàtte nag ah sama sama sama sama sama kooku sama jëkkër la mu ngi dëkk Pikine muy Moustapha Ndiaye. ah di ko wax douze deux yaa ngi noonu daal moom dina comprendre fu may waxee bu baax baax di ko may nag sama papa tamit ah Claude Montero kook sama papa xol la mbay ma benn yoon nag sama deuxième papa muy papa Bouba hmm. maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax samay doom Modou Mané Góora Mané Khady Mané Euh, Sora Sora maa ne ñoom ñëpp bàyyuma kenn moo jëf yaa ngi noonu daal. émission bi jeex na li ma bëgg mooy tàmbali ci lu ah, neex. waaw waaw Kaam soppa yi famille Xumbu Taaha Cheikh Babacar Sey sang bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak ñoom maama. Aminatu. Mhm. Euh, waa Wakaam ñu ngi leen di ziar baax di gërëm ñëpp bu ñu limee rek di fi jigéen kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nag di jox ñëpp rendez-vous mhm. incha allah programme yi xam naa ci kanam tuuti daan daan euh, suñu manager bi dina ko dina ko dina ko wasaare ci internet bi mel ni Tafa sang bi ñoom ñëpp kon dañuy woy rek ñu toppee wax jeg yooyu duñ fi jógee muy bégee ñëpp rek di sant mhm. sama xarit Issa Thiam mu dul ci Medina بريدنا ولد محمد المصطفى سمجير ينين خير الانبياء بكلين جنين موي سنغ سنغي سيدنا محمد محمد مچ مدینہ برم مدینہ ویل محمد المصطفى سمجين يا خير الانبياء ماني ويكي يا سيدنا محمد borom bariyeeru óor bi ci Madina Musa yow laa di way yow laa kañ yow laa di ba keroog ñu may jaale tey jii rek ma way sang ba ca gànnaar bàyyi Cheikh Taalib Buuya mhm. waaye day ma way ma Ceerno Cheikh Adraame doomi Cheikh Sidi Buuya doomi Ceerno Cheikh Saadu la bey sangu gànnaar ak nim zaad شمس درامي باي الشيخ مغفور منصار شمس درامي باي الشيخ الشيخ الخليفة السمية كارتي شمس درامي من شيخ السنوباي الشيخ عبد الله بوي باي الشيخ مود جاي دفك ميري جار الله باي بدو بوي باي سلبوي باي غراس شمس درامي نانا ينتاري بي saxoo leen ci kalimatu laa ilaha illa allah cheikh sidi bu ya borom gëléem gi sabaay nee na laabud min zikril ilahi fala tansa ilay wala tabi bi badala is kunta za hadarin aw kunta za safarin fa hadiman diino cheikh sidi bu ya sama yaakaar tey ak ëllëg sabaay cheikh adrame nee na sabaay cheikh adrame nee na is kunta za hadarin او كنت ذا سفر فحد من دينه تنبي عملا دولتي خنا خموك في باخ بني لي ياكار وين كي تخل جامي سيدنا محمد واو واو. سيدنا محمد دغل غور كي تي كسور اراج مدين تام باي ما سك تام ريزيدا فونداسيون كرسول حاج مدين نانا سيدنا محمد رسول الله تا لك الصناعه بنورك قد تزينت السماء وأنزل فيك قرآن كريم كتاب للأنام بنجاو حشم الجميلة ويمكن قدر رسول الله وقل عزة وقل مثل وحصة لنا أيضا حجج أراه يريد مشركون بدارين ندوة مسك سبعين هلك محمد ولهم بلاهم لقد هلك يدا ولهم أسماء لما نبذ الكتاب لهم دياه وكن محمد رسول الله حشمد لنا جلنا سما خلبي جل سما روجي جل سما لب جوخ سيدنا محمد ينك الحشمد الله وحمني أحبه محمدا خير الأنعام وأكرمهم له أقنى نامي لا إله إلا الله بوجدين وي رسول الله bay ma sekk nee na julli leen sëlmal leen ci sangu-sang yi maami cheikh na cheikh saadu la bii wasali alay waalin kiraami maa taslimi rabbi lakal ada wooy nuurataha samaam nee na julli leen sëlmal leen ci sangu-sang yi seydina mouhammad maami bushra ahmada wasali alay waalil kiraami maa taslimi rakal ada